ay ci jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf Yacine Pouy tabarkal momen ndjay maa ngi lay siyaar li ma wax nak soxlo ma ci cede euh, yow it passe partout maa ngi lay siyaar di siyaar internet yi ak auditeurs yi bienvenue ci sen journal des faits divers classe ci RFM 94.0 ndjay sama waa ji ngi lay delloo siyaar ababakar ba yaa ci jamm sant nañ bu baax alhamdoulillah maa ngi nuyu passe partout maa ngi nuyu wa senegal yëpp ndjay Ndiaye amna lu mu bëgg mu feeñ ay ci dan la Ndiaye réew mi. indi ko fii loo bëgg mu feeñ rek indi ko fii. xam nga vaar daf fee am te du fi jógee. dëgg la lu fi waay wax na lu fi wax na nekk lu wóor de. daam ku toogoon fii. Mhm. ne senegal mhm. su gañawul trois 0 yow da ngaa bëgg wax yi sew. Ndiaye xaaral xaaral xaaral yu mel nii. Mm. yóbbuwuñu équipe bi ci kanam dañuy arriéral équipe bi. merci doo gis sa doomu réew. doomu réew mi jël xaalisam yóbbu ko ci kii seet mu seetal ko digal ko ay sarax mu saraxe. kooku wax ko ni ko Sénégal dina dóor 3 jëm kaw wala 4 confiance laa am ak yéene. toog sama oto. kenn fayu ma kenn neexal man li may perte ci équipe bi. Hmm. li ma jaay ci équipe bi njaay kenn mënu ma ko fay. loolu wér mais équipe bi laa bëgg. wax nañ ma sarax génne naa ko am naa confiance njaay rouge ñi xam nawetaan ñëpp xam nañu day annulé bi ñaari rouge ñu annulé samay ñaari Abdoulaye Diop waxal Abdoulaye euh, Abdoulaye Diop euh. naa ñaan ñaari junni léegi moo ko amee yow laa koy jox. ma maa ngi koy ñaan léegi ci antenne bi ku yor ñaari euh, am sama numéro envoyé ma ko Abdoulaye Diop mi laa koy may. abaa kañ ngay yaa ngi dégg ñi xamul football la ñoo yàq football bu ci wax ak ñoom bi ma sama doom laajee bi ma sama doom laajee ci oto bi ne ma euh, foo toll ci Sénégal bi laa ne hee <laughs> Sénégal rek may jaxase ak sama famille euh, nañ dem ci xalaas bi xalaas bi njëkk lu mu wax <laughs> balaa may waxati dinaa ko seddee euh, di nga xoolaat ñii juum ndake comme li may daj lañ daj démb li ma daj kon ci seet nii di juum li <laughs> démb de ku ne envoyé waat na ma sama vidéo bi ku ne damaa teel a tëdd démb damaa wax ci mbooloo baaxul. nañ dem Ndiaye. oui Ndiaye démb. dafa am benn femme bu fi ñëwoon di seet benn doomam bu ñuy wax maam Jaara Gueye. waaw tamit naan décembre bële la ko gëj a dégg. waaw waaw. ba ngaa dégg dëgg Ndiaye. maam Jaara mi ci lu ko neex de. ëpp naa wax. maa maam Jaara maam Jaara cay tànkam de. xam nga baax baan euh, bu toogee fii ne. Mhm. ñi ci réer quatre vingt dix pour cent yi. dix neuf quatre vingt dix pour cent yi. Eh, le maire. visionnaire la. Eh. <laughs> Ndiaye am na fu maam a jot a jaar. waaw ca Mali. aywa déedéet waay seet ci tur na fu booy bi jot a jaar. fu mu jaar Jaja. Ah, <laughs> na ca Mali. menn mi menn mi. Mhm. déglu la ko fa yóbboon. ayca. ko def tey muy maam Diarra Guèye maam Diarra Guèye boobu ñuy wax noonu réerul ay mbokkam de mi ngi ci sago boppam nekkoon na fii Mali bi ñu tabaskee ba si àjjuma bu njëkk bi ci la ñibbiwaat mi ngi Sénégal boobu mi ngi woon fii Mali nekkoon na fii Mali ak benn faram boo xamante koo xamante ni moo ko fi indiwoon mu ko doon doxaan fii muy bi loon ko restaurant xam naa ko bu baax maam Diarra Guèye la mu ngi dëkk Laañaar fii la nekkoon bi ñu tabaskee ba si àjjuma ji ci la ramas bagage yëpp delluwaat Sénégal maam Diarra Guèye dëkk Laañaar Mali bii la la tabaskee biñ tabaské ba ci aljuma juñ jëk ci parce que dañu tabaské am 3 jours xam 2 jours aljuma jot aljuma bobu nak ci la waji dem juma mom mu jël bagage yépp dem yoonam mam jaara bobu mi ngi ci lika neex mi ngi dakar dafa am ku koy bilon fi place ni won da koy tak mais dafa xey ben jour rek ni daal di ramass bagage yépp jour aljuma bi waji démé dem juma ja ci lay bagage ci kata kata dem koku mom entrepreneur la koku moko tijjulen fi restaurant ni da koy tak mais bi mi dem nak daf ko trahir quoi daf ko bi restaurant bi finance xaar bu bari wa mu nekk ci mom mu xey suba rek mu tej place bi ni place bi doxal mu jël bagage yóbbu këram jur tabaski biñ tabaskee ba ci àjjuma bi mu dem juma di julli ji bi mu ñëwee fekk fa femme bi la demee femme kay xam naa ko. xalaas. du yaa dégg da jajaa def loolu. jajaa. léegi ana yaay ji moom yëg na xibaar bi. waaw yaay ji woo ma parce que maa ngi ko doon woo ci numéro bi ma joxoon démb mais jotuma ko. bi may dugg léegi léegi la am ku may woo ne moom ma doon ci beneen <laughs> maa ngi dugg. Sénégalais yi ñu ne. waaw euh, dimbali rek nga écho euh, kii nii euh, ma wax li Sénégalais yi wax parce que lii xalaas express la. li ñu wax Sénégalais ñu ne ñoom amuñu problème ci élection locale yii yi yi yi yi passé waaw yi élection <laughs> locale yi di ñëw la problème nar am. Hmm. ñoom Mamadou bi Zik FM waaw ñoom Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ñoom ay candidat yi nekk par <laughs> dëgg la. xaw a de. ay candidat bañkat ngay gis noonu. candidat surprise ak ay candidat bañkat. <laughs> Mamadou ah. Mansour Diop rek ci candidat. ki nekk sax <laughs> ni askan wi eh. xool leen ki leen ni jëriñ. Eh! Mamadou Mohamed Ndiaye ñëw taxaw fee. naan ci lobs laa ko gisee. lobs nee Oudou Mame Ndiaye eh. <laughs> da ngeen ñuy nax bàyyi leen ñu waay. dama gis ba bu Ndiaye <laughs> dama gis. yàlla suturaal ba réew mi déggaguma fi maire bu dër. lan am na candidat. Abdoulaye Dieye Thiès maire bu dër no maire bu dër la ah ok ok Abdoulaye laay waaw ma la mu gisee mu ne ma ne ah man de bii di ñëw damay déposé sama candidature. waaye ci lu bii di ñëw nii. ci hmm? lañ nar a gisee maire yu ñaaw. <laughs> locales yi ci lañuy fal nañu maire ñaaw du ma tudd tur nag waaye. te décentralisé duñ ko dégg fenn fenn fenn fenn fenn. Eh, eh, kii. Eh, nga ni kii. taxaw taxaw ah déet taxaw ci maam Diarra nag abaa nag. Hmm. xam nga abaa fii da nga fiy toog chaque jour Ndiaye. Hmm. nit ñëw fii ne sama doom. dafa réer réer na. fekk na yoo yaay ñaaray am. ma ngi ko neex wala mi kaso bi wala dee na. Mhm. effectivement leen de xam naa ko. fu mu mën di nekk munu faa noppalu tant que noppalu ndeyam ji. ah xam nga yow yaayam ñoo ko gisandoo bi mu taxawee fii. Mhm. waxtu wi mu fi taxawee. anam yi mu fu ñëwee. Mhm. la mu sol sax taru koo seetlu. taxaw ci buntu rajo boo xam ne wóor la sax ndax ña ngay seet di nga leen gis am déet. gis leen te di guddi du nelaw xel mi du jug ci doom ji yow nga bàyyi sa yaay ci jaaxle googu. du am jàmm bàyyi sa yaay ci fitna jooju. du am jàmm ak loo mën a wuti ci këru àdduna boo ko amee doo ko muurloo. Mm-hmm. Mm-hmm. lu mu mën a nekk. Mm-hmm. na ko ba te ñëw defal dalal xelu ndeyam ji. après nag wutug ñaanam lu muy wuti soog ko wuti. waa di nee na maam ndakaaru gi. fu mën di nekk daal na dem ci yaayam rek. na ngi nekk dina wutal numéro parce que ki ko fa yóbbuwoon moom xam na ko. moo ko yóbboon Mali tijjul ko fa restaurant ba ba doon ba bëggoon koo takk far maam euh, Dia Dia dóor ko ñëwaat Sénégal. lu mu ci mën di def rek na dem ci yaayam. en tout cas daal arrière. lu ñaaw la nekkoon sa kanam yëpp nga fexe mu nekk sa ginnaaw. xëy na sax boo demee xelu xale ko jàpp parce que man yenn yi bu ko jigéen mënee def yaayam. am na arrière euh, bala may gëm ne euh, du xelu xale yow mi ko def nga ne ma du xelu xale maa ko tey. te nag wallaay Ndiaye boo ko woowoon tey jii mu ñëw toog boko laaje di tax muy son nak non di dang dangi dang bu la ko waxe nga nga bay aduna yaay ji rek a tax xam naa mais na demat ci yaayam rek yaakaaruma waaw mais na demat ankay bari na xale yoo xam ni wallahi mais na parce que bu doon yaam la abadam bu dewe ba Mali ba fay liggey dina ko wo xam ko ne ko maangi liggey liggéey maa ci yi bëgg surprise ah 10 millions million ñaar ñaar jigéen ñoo fi ci la xew yo ki dana def tout sauce espagnol waaw mais gis nga xeetu sport bobu ñu doore won bombardier mu daan mhm. bu koy tabé télé wu lutteur yi Sénégal yi mbër dana ca dee. mënuma cee wax MMA gi. waaw ma ne mënuma cee wax. mais nañu ko tere nit booy def da ngay dem ci loo xam. ah est-ce que état mën na leen dem États-Unis dem lan dem États-Unis waaye déet xanaa du ñuy doomi def kay nga toog foofa defee ko fa mais am na loo ah. xamante ne ji dañuy seetaan ba musiba am ci ñu naan suñu yëgoon ah, ay maître armation lañ mais loolu da ngay gis ay maître armation ñoo xam ni dañoo gagné ay concours armation gagné ko gagné ko gagné ko ba tàyyi dugg ci xeex boobu nga xam ni sa waay euh, liñ ci dañoo xam fii rey nit. xam nga hmm. Sénégal moom kenn gam-gam liwul ne mën nañoo fecc. fecc ah. fii mais lu tax mënuñoo fecc samba bu Brésil parce que moomuñu ko sport boobu moomuñu ko. nañ dem suñu làmb ji jéem ko développé. lan la da nga cee gisaat keneen kuñ ci kii waat. bon waaw loolu la bëgguma personnalisé mais gis naa mbër meneen mbër muñ ci toroxal. ah fii nga fi toog ni xaw ma lan ba baa ñu koo bàyyi dafa am. ku ci dee kenn ku ci dee loolu loolante la woon. xëy na xëy lëndi xëy lëndi <laughs> balaa ñu koy bàyyi daa am ku ci dee waaye loolu tamit balaa ñu koy bàyyi am ku ci ñàkk loolu noonu dafa métti de. non nañu ci wax. su jumul juumul dégg naa des sports mom da koo tere ñu pratiquer ko Sénégal. Ah? wa ah, Sénégal wa dañ ko fé téré yenn nga gis sa frère sa doomu réew ñu japp ko fay duma ko duma yo xamni wa yow. Ah. lu lepp la mais jaar amna lo xamni dañ koy téré Sénégal nga gis ko dag fi bass dem dem bi dem réew. waaw boo ko fa xasee ba def nga tok fa. <laughs> ba ba bari na ci de. fa dé ñu sul la fa. ki di ne sama xel mi ki ki bëgg na wax si yow. dem ci classe bi ci tok nga ni la la fam bandi. ñay hmm. ndaw su triant ngi ni fam bu triant ñiy jaay vente en ligne. Mhm. ay or ak borom bijoutier yi ndaw si woote commande ci benn yi ay or valeur cent mille. Mhm. nee na ko livreur bi indi rond-point Liberté 6. livreur bi ñëw ba rond-point 6 Ndiaye. waaw ci am Ndiaye indi jóob gi rek maa ngi la yónnee yónneewu ma la ndaw si dóor na jaara or yi fraction de seconde nee na tër. Hmm? waaw déglu livreur bi. maire bu ma triandé jaaro or yi dafa commandé woon ay jaaro or ñu ko ko léegi mu ne doy yónnee xaalis bi quoi xam nga léegi mu waroon transféré cent mille mu transféré quatre-vingt-douze francs léegi daa bëggoon waa ji bu gisee transfert Wave rek fekkee da ngaa jàpp quoi bu ñu la yónnee message nga gis message Wave rek da nga naan c'est pas grave ñëw na quoi mu dem léegi nag bu affaire bi ñëwee waa ji ne cent mille yi ñëwul quoi léegi man ne ndaw si yónnee woo xaalis bi demoon mu ne xaaral mu yónnee waat mu nekk ci portable xam nga rek ku nar a def yëfu trian nekk ci portable bi di bus di manipuler di bus di mani xam nga ma siak man ko man awma jot damay liggéey leg mu ne ma léegi na ko jox sama numéro man mu transféré ma ma ko sama numéro mu nekkaat ci di courte courte di courte courte parce que yàgg na ma wéefam dafa plafonné homa léegi nañ dugg ci benn euh, wéef fi ñu taxawoon amoon na benn wéef man li muy wax yëpp maa ngi taxaw ak moom nanguwuma ko nanguwuma bouger mètre léegi nag ba demee ba loolu am mu ne nañ dugg ci boutique wéef mu retiré man ko comme da ngay retiré jox ma pochette bi quoi pochette or bi nekkat rocci na jaar or yi ba may woo gaa mi di ko laaj ma xam xaalis bi ñëw na ins boobu la rocc ci jaaro yi te yëguma ko te maa ngi taxaw ñu ne nañ dugg si bitig bi retiré la tànk may gaare sama moto sur sax une minute ba may gaare ak ba may gestu di ko xool mu ne mes dem yoonam si rond point Liberté 6 waaw te jigéen la mu ngi boot doomam ndaw su gàtt la nii waaw boot doomam te mu ñuul vente en ligne la quoi moo ko ko commandé ñaari jaaro or muy cent mille francs léegi mu ne nañ ko ko indil euh, rond-point Liberté 6 man dem naa ba xam ne kii trian la léegi nag nanguwuma ko bouger mètre léegi la tant que may woo gaan bi ma ne gaan bi ndaw si daal wóolu ma ko quoi ma ne naa mu dégg li may wax la tant na nag bu may bouger tuuti même pas deux mètres ndeke nag si la ubbi nànk boîte bi sotti affaire ci saag tëjaat mel na ku ko téye noonu mais nag tant que joxu xaalis bi waroo ko woon waru ma ko woon jox bijou yi loolu moo tax ma taxaw ko nag di ko déglu quoi noonu la dem ma nga noonu de. Hmm, ay na de. waaw ah, rocc na jaaro yi bu yàgg bàyyi waaye sa waay ci vent bi. mais xalaat tool ni am na lu mu àndal am na lu mu yor wala am na lu mu kii. non yow yow abaa ñi dañuy dox sa maayaan rek. ñii xel am xel rek la ñu àndal ànduñu ak leneen. dañuy dox sa xel rek. leneen. dafa am ñoo xam ne abaa boo leen gisee dañoo jekk ci jub. Mm-hmm. da leen gis rek ne yii ñi ñu war a honnête la ñuy. wóolu leen fekk na ñoo gën a dëng. jaay am na benn femme nekkoon na maire. mu nekkaat na maire. Euh, nu mu tudd Yaay Fatou. Yaay Fatou Diagne. Euh, campagne bi muy clôturer campagne am. Mhm. bu ci sori <coughs> bu ci sori abaa. lu xew. ak jiin ba ma ko gis mu sol day njaay kooku de carte yi da këf de <laughs> carte yi moom. la il madame le maire maa ngi jégalu de. Euh, Ndiaye. am naa vidéo bi man de mooy sama maire moom. dëgg yàlla moom bu dee da ngeen wut maire ut leen maire man yaay Fatou Diagne mooy sama maire. maire fan la. waxoon naa ko ko ca QG naa ko waxaat fii. maire fan la fam ne mooy mooy sama maire. yaa ngi nii di allié koo xamul baax la bëgg naa man nekk adjoint ci maire am naa ko QG waxaat naa ko sama yaay la. dama ko ne ko man yaay sama yaay mu ne ma nangul naa la ko Aba barke barke yorante bi gis naa ko gis mais bu ma ko gisee mu clôturer campagne def jiin waaxu daa daa ne ne ñooñu. Oh, ku ngeen àndal man man yow bi ma naan yaay faat dama yaakaar maa ngi woon ci biir campagne bi <laughs> <laughs> ma yuux naan yaay faat man boo dama yaakaar ni. nga ni lan la kii Aba. balaa <laughs> balaa ñu dem ci ci laxaat foor nga fi indi loolu la ñu woy liste parallèle. ah loolu la ñu woy liste parallèle yeggale. yaay balaa ñu nekk laxaat. yaayu xadi. yaayu xadi ummi seen. mi ngi nekk euh, Sonatel. Hmm. dafa gaaroon otoom démb buntu école Mamadou Ebinta. Hmm. di jël ay doomam ñu tijji otoom. jël fa saagu ordinateur bi nga xamante ci la HP am nekk HP Sonatel. Mhm. ak benen saagu bu ay PS am nek ay carte d'identité ak carte bancaire ak xaliss ak yoy quoi. PS yi nak mom moko ci soxal ak ordinateur bi nga xam ordinateur Sonatel la. wax na nu mel ordinateur bi. HP la waaw parce que gars yi bu ñu ko jëlé dañ koy jaay nala wax par exemple tay ku tal ordinateur bi lum lay andil wala mandarga buñ ko mëna xamé waaw dégg nga comme ça ñu jappalé ko ci turu yaayu khadi ummi ñu ko dimbali waaw demb la ci ummi yaayu khadi ummi seen. di ci la nek ah te ci la xëy ne fu ñu jëm Ndiaye mhm. euh, suñu lu ñu fi jàlle woon bërki démb Abdou Lahad mhm. te mu tailleur ba da gëltaap yi génnoon dem far yàlla ñu gis ko mu ñàkk bakkanam te feeñ ci morgue yi waaw mhm. frère bi mooy wax nii xam nga sànq abaa mi ngi wax ci ay ñu ko doon seetal ak yooyu loolu la ci gën a naqarlu ndaxte ndekete Lahad jour bi mu génnee onze heures fekk génn àdduna hmm? le treize boobu génn àdduna wax nañ ci ñeenti circonstance la faatoon waaw dem na laaj naa ko mais xam nga comme tey lañ ko waroon robi te ñu ngi nekkoon ci affaire yi xam naa loolu moo taxoon tontu bi xaw a kii quoi ok mais daal le treize bi ñu ko jàllalee fii ci lekk ñoom ci xaalis ak li ñu wax moo koy waxal boppam fekkat yi fii mu nekk nii kay bu ngeen kiiwee gis ko yooyu fekk ni tarkal la euh, am na ku dem banaan ko banaan ko ñu ngi koy jox lekk te bu ñëwaatee laaj leen ko jour tel heure tel kan moo ko doon jox lekk wala ñu naan la jéggi na ndox <laughs> déglu waaw comme ni nga ko waxee Abdou Lahad mujj na feeñ mais ak feeñ bu triste parce que dañoo fekk mu ñàkk bakkanam comme noonu nga ko waxoon rek. mën naa daal moom la treize bi mu génnee këram ci fajar avant onze heures gaañu na muy ci même jour bi kon loolu tamit entre parenthèse la woon boo ci loolu def rek parce que après réer bi lépp waxoon naa leen ko. li ma ci yokk li li may taxama waxaat ak yow sax ci lii bon mooy depuis le treize ba le vingt quatre démb ñu trouvé ko ak ci morgu le dantek depuis le treize boobu ba le vingt quatre ñoo ngi wër li ma def kaa nag mooy sëriñ si ñoon dem sëriñ si moo tax may waxaat ak yow nii sëriñ si mais kaaw Abdoulaat moom moom moom vraiment moom mënatuma ci wax ci lu sori waaw sant nañ ci yàlla baax comme feeñ na ñu gis ko mën cee eggale suñu yéene ci moom mais sant yàlla rek delloo lépp yàlla suñu borom comme gis nañ ko teg ko bët dañuy sant yàlla parce que nit réer na ay mbokkam mënatuñu koo gis nit réer na feeñ duñ gis ay mbokkam kon suñu yàlla dimbalee ñu gis ko ba mën koo defal li ñuy defal ab jullit bu faatoo dañ ci sant yàlla bu baax a baax mu nekkoon nag rek comme bi sësoon ci mën nag koo xamante ni moom sama complice la woon moom sama xarit la woon manqué dina ma manqué nag moom mais sant yàlla. man revenir à tuuti si ginnaaw li ma doon wax rek ci sëriñ tariyaax yi maaman yi seetkat yi suñu wax dëgg parce que depuis le treize ba le vingt quatre ngay wër nit koo dem mën la mi ngi ci jàmm mi ngi am jàmm di nga ko gisaat dina dellusiwaat ci yow dina dox ba ñëwaatal boppam dañ ko lii dañ kaa laay ñii naan la dañ ko luñ ko def la ñii naan la ay rab la léegi ñoo ñu bëgg leen a bàyyi ci société bi ñu ciy dund quoi di arnaquer nit ñi. lu nekk ñu wax la ko defal lii defal lee defal laa yóbbul fii mbubam defal laa yu nekk ñu la koy wax koo xamante ni yow ci jour bi mu génne fajar bi mu génne avant onze heures gaañu na le treize ba le vingt quatre chaque jour koo dem chaque jour di nga dem ci wat juróomi sëriñ ñu naan la defal lii defal lee defal laa la jox ay tegtal yoo xamante nii moom mën ngaa xëy suba woo ngoon ñu naan la demal fee demal xooli ko bërëb sàngam demal fee demal fee fuñ la wax nga naan la daw wuti foofu te li ñu wax lépp dara ci dëgg demal sarxe di demal sarxele te li ma ci gën a def kaa nag buñ la waxee demal bu ñu fekkee sarax boo xam ne yow yaa koy jëlal sa bopp di ko di ko joxe yu ñàkk fay la lay digal mais bu dee sarax boo xamante ne ñoom nga koy jox ñoom nga koy jox xëy na ñoo ko war a def wala ay som bu bëri lay nekk mais sant yàlla parce que bu fekkoon dañ ñu koy laaj te yoruñu ko mu metti mais bu ñu ko laajee dañ koy yor jox leen ko parce que boo ñàkkee yu mel noonu da ngay jaaxle lu ñu la wax rek nga def ko mais ñoom war dañoo seet seen diggante ak yàlla de kii nii fi tëdd ne ñoom tamit dañ fay tëdd de mais ñu duggee di dëkkee ci seen ñàkk wax dëgg bi ba ju ba faatu dina métti trop ci ñoom wala ba ñoo bala ñoo faatu wax dañ koy gis dañ koy gis bu baax a a baax baax ñooñu la war nañ cee jóg askanu Sénégal nag nañ yeewu ci genre yooyu ku amati ku réer wala koo gisatul boo xoolee xool gisoo ko demal xool ko ci morgue yi wala ci police yi boo ko nga toog jàpp ci yàlla loolu daal laa xam waaye man daal lii ma gis nii moom man moom dina ma yee man ak ñi ma ko séqaloon sama ñaar dërëm dootuñu ko lekk lu ñu wax dëgg jaxasala ak say mbokk jaxasala ak say nit jaxasala ak say dëkkandoo il faut nit ñi yeewu ci ñoom vraiment xamuñ dara xamuñ dara ku ci tëdd ba guddi ba fët set boo ko laajee loo réer démb du la ko wax xamuñ dara mais nag ñun sant nañ yàlla bañ ko gisee maa ngi gis ñu ko gis gënaluñu woon mais loolu la yàlla dogal sant nañ ci yàlla bu wér-wér mais li ma ci gën a naqar daal mooy sëriñ si rek sëriñ tariyaax yi daal yi te duñu wax dëgg te ñoom daal vraiment poson lañ ci réew mi quoi

gis nga jour bobu mbooleem bari na ñu leen gëmoon ño xam ne ñu leen. parce que xam nañu ne li ñuy wax du deug et puis dañ leen a jàpp. donc lool mom lu ci positif la. lu ci positif la ñu mel non nak ño jara baril ba ñu xam ne li ñuy woote nekkul ci ñoom seetkat yeeg buxaaba yi dinañu ray nit ñi. en tout cas ñun ci nax nee naa leen fi yalla fi nek ñu ci yàq àdduna ñu bare bare bare yalla fi nek mën fajj bu doon taxa dundu dund docteur du dee. Mhm. lépp mi ngi ci loxo yalla sunu borom. Thank you.